Elaj maaleykum salaam Dakar Midi maa ngi leen di nuyu di leen kontaane waaw tey ñu gis la soirée Tabra tey lan moo fi sa sa teewaay lan moo tax ñëw waaw sama frère la moom bu xewlee damay teew damay bàyyi yite yëpp ñëw ndax sama frère la sama lépp la moo tax bu xewlee tey damay ñëw. waaw tey ñu seetlu euh, à chaque fois dañ lay gis si watu Tarba Mbaye affection boobu lan moo ko indi entre ñaar. maa moom lu yàgg la depuis xale. moo tax nii rek lañ koy continuer sunu papa yi la woon tey ñu màgg mu yor loolu rek loolu kese la muy sama xarit moo koy ñaanal yàlla defal ko taw bi loolu kese la. tey boo amoon conseil booy jox seen génération bi ban conseil nga leen di jox ah ñu liggéey booloo doon benn rakk yi respecté man mag yi wet ndaw boobu la boobu rek tey tey gars yi dañ naan euh, nouvelle génération ñoo yàq musique yow loolu ban gis-gis nga si am non non non non loolu ay détail la loolu ay détail la dañ liggéey rek yàlla baax na yàlla ñu yàlla defal taw fee ñun ñëpp waaw parce que bu rek ah, da liggéey pour ñu nekk sa ginnaaw kese la waaye xale yi nañu respecté mag foofu jeex na kese la. tey tey lan mooy projet El Hadj Keita lan mooy projet waa ñu waaj album bi incha allah bi incha allah ñëwee rek di ngeen xam ne lépp dëgg tey ñu gis benn single boo xam ne def nga single boobu mu ngi mu ngi toj dëkk bi film li ban réaction nga si am. mi ngi ñëw clip bi mi ngi ñëw incha allah dañ koy yëngal ban message ngay ngay wax ban message. non ma xaar El Hadj Keita mi ngi ñëw yëngal. merci beaucoup El Hadj jaajëf.